définitivement édifié sur son sort. Il est condamné définitivement. Maintenant, le président de la République a toutes les prérogatives euh, de prendre, par exemple, une mesure de grâce. Et je dois simplement dire qu'en ce qui concerne l'amnistie, ce n'est pas du ressort ni de la compétence du président de la République, c'est de la compétence de l'Assemblée nationale. mais il appartient au président de la République d'analyser les faits et s'il veut vraiment appeler à un rassemblement, à un consensus national, peut-être il prendra une mesure de grâce en faveur de M. Khalifa Sall. Je le souhaite de toutes les façons. waaye appel boobu man euh, li mu def ma ciy bëgg je crois que askanu Sénégal bi yëpp dañ ciy bëgg parce que xam nga Sénégal réewu jàmm la président wax na ko nee na moom benn temps politique fort la mais bu ñu defee élection ba pare li ci des mooy liggéey looloo tax mu ne comme moom mandat bu bees bii nga xam ne peuple sénégalais bi nañ ko mu ngi koy ndamboo peuple sénégal bi moo moom moo ma ngi koy ndamboo mais mu ngi tàllal loxo ñëpp dem na ba ne sax mu ngi tàllal loxo ñi nga xam ne ñoo fi yore woon réew mi muy ab Abdou juuf muy Ablaye want su bu waxee loolu seen parti aussi moo tax muy wax ak ñi nga xam ni ñoom tamit seen i seen seen ay militants lañ wala ay sympathisants donc loolu foofu la ko Sénégal doon xaar mooy mu tàllal loxo ñëpp pour ñu liggéey liggéey bi nga xam ne moo nekk ci suñ kanam wax na ko liggéey bi ñëpp a ci xat ñëpp a ci xaj. amul siis amul dara ñëpp a ci xaaj doomu Sénégal yëpp a ci xaaj moom tàllal na loxo ñëpp je que foofu ko Sénégal doon xaar donc euh, tey ñun ciy gërëm en tout cas man maa ngi ciy gërëm di ko ci sant je crois que askani Sénégal bi yëpp aussi ñu ngi ko ciy gërëm parce que président bi wane na ne moom jàmm la bëgg wane na le président de tous les Sénégalais wane tàllal na loxo ñëpp pour ñu liggéey Sénégal parce que Sénégal rek moo ko ñor te ñun ñëpp ñoo ko bokk. tey jii est-ce ne libération waaw loolu xam naa dama ci wax ne mënuma ci sori xam nga justice bu defee liggéeyee ba pare exécutif muy président de la République mën na ci dugalaat loxoom léegi affaire xalifa Khalifa Sall xam nga tëddee na boor. dem nañ ba cour CEDEAO xam ne ne léegi condamné na ko définitive définitivement léegi président bu ko neexee mu dugal ci loxoom mais fu muy yem mooy grâce mooy baal ko pour tudd kaso boobu je crois que loolu bu ko defee aussi xam naa askan wi am na ñu bëri ñu ko cee xaar te mun na am mu def koon ndax ndax dafa woote jàmm dafa woote waxtaan pour waxtaan bi gën a neex aussi je crois que président mun na def loolu en tout cas man suma ma laajoon sama xalaat dinaa ko ne mu def ko voilà.